ana ah, ah, chauffeur dans le véhicule, attendre que le rang bouge et puis va Mais s'il laisse le camion ici, il va dîner, il va bouger le camion, personne. Voici la situation au quotidien du trafic routier aux alentours du port autonome de Dakar, à l'origine de la congestion terrestre. Ceci a ralenti de manière significative la mise à disposition des marchandises sous conteneurs au niveau des usagers à travers les lignes maritimes. Le fonctionnement du port au niveau de conteneurs est encadré par ce qu'on appelle des délais de franchise. Et ces délais de franchise sont euh, régulièrement dépassés, et ce qui occasionne des surcoûts pour les usagers mais de la contre-performance pour le système global au niveau de la congestion terrestre. Au regard d'une telle anarchie, l'autorité portuaire lance alors une grande offensive contre la congestion terrestre. De gros moyens logistiques et sécuritaires sont déployés sur le terrain. nous allons dénouer la situation et reprendre un fonctionnement normal du port du côté de l'activité conteneur avec le rétablissement normal du flux terrestre. À l'issue de cette opération nocturne menée avec l'ensemble des acteurs portuaires et des autorités administratives, le bilan est plus que satisfaisant. Nous avons dégagé euh, sur la voie énormément d'instruments ou d'équipements roulants, notamment des engins lourds, des plateaux, qui dénotent une occupation irrégulière, souvent sauvage, de la voie publique, avec donc des engins lourds. Et il a été remarqué, d'ailleurs vous le voyez, l'activité portuaire continue, nous avons pu enlever de la voie publique des camions remorques, certains en panne ou d'autres mal garés ou bien dont les chauffeurs les ont abandonnés donc sur la voie publique. L'autorité préfectorale tient également à en assurer un suivi permanent afin que pareille situation ne se reproduise à l'avenir. En rapport avec la police, nous allons mettre un dispositif de suivi qui va contribuer en tout à faire respecter les mesures qui ont été prises, mais éviter que la situation de congestionnement qu'on avait connue ne revienne et entrave le fonctionnement normal du port autonome de Dakar. Nous avons travaillé sur un dispositif de 15 jours, mais tout à l'heure, après discussion avec le directeur général du port, nous avons décidé en tout cas de mettre ce dispositif pour une durée de deux mois. À l'issue de ces deux mois, une évaluation sera faite et les enseignements tirés pour nous permettre de nous projeter euh, dans l'avenir. Cet exercice a permis de libérer les quatre grands axes stratégiques dans le trafic routier au port autonome de Dakar. Il s'agit de la voie Rocade Anne Belair, l'avenue Félix Eboué, la route des Grands Moulins et la route des hydrocarbures. mettant fin au cycle d'embouteillage infernal auquel étaient confrontés les acteurs portuaires. Désormais, tout transporteur agréé qui ne démontrera pas qu'il dispose d'un parking verra son agrément annulé. Parce qu'en réalité, des transporteurs agréés ne disposant pas de parking utilisent la voie publique comme parking en attendant d'avoir du service. Face à ce résultat obtenu en quelques heures, les transporteurs applaudissent. damay remercier déjà le directeur général du port gis nañ ne res bi nga xamante ne moom la ñëpp di jooy li ko waral c'est visible tey ji aujourd'hui directeur du port jël engagement pour dindi problème bi pour occasion de res bi nga xamante ne moo nekk périmètre portière bi mu éradique complètement conjonction terrestre bi sonal na même riverains nga xam dañ dëkk à côté sax li def leen sonal te lii déjà c'est une solution boo xam ne un de solution xamante ne bu ñu ko encadré mu am suivi vraiment dañu wax ne luy jeex tàkk la te boobaa ñun transporteurs yi nga xamante ni ñun xam nañ conjonction bi lim ñu li perte déjà lii day nekk début de solution pour ñun ñu mën a reprendre beneen donne bu bees Le directeur général du port autonome de Dakar Après l'enrayement total de la congestion maritime l'année dernière, l'autorité portuaire assure à présent l'afflux du thé du trafic routier au port autonome de Dakar.